dépassé man ci doomu mau ada que Fallou nit koo xamante ne mbooloo bi mu topp rek bu ko topp rek kenn xamul lu topp kon daanaka kii moom dañ ne dem na àjjana ñu leen di ziar comme nu nga ko waxee rek moo Fallou tur bi rek Kau na borom ndax bu ñu nee sëñ Fallou rek tur bi kon de wuy borom Fallou

ndax tay mbolo mu fi daje te du ñàkk ko ko ci sunu borom rus ci ay ñaanal ñu koy ñaanal nak xala la woon dama nek torop waaw parce que sunu ben frère ñu wax Cheikh bi ñu ñaar ay doomu ndey la ñu yoroon and ba mardi bi déggante na ñu koy ñaanal ci combat ñu ko yalla la yalla ñu dal ñu nekk lu metti waaw diko ñaanal nak fa mu jëm bu ko fi mu jógee ñaan yàlla cat bañ ko jiitu si bàmmeelam ndax ñu fi nekk ñi ko mbooloo suñu borom day am kum ci rus waaw loolu rek lañ mën a wax si moom en tout cas rek jumu respecté la woon du jox ceeb waaw loolu xam nañ ko ci moom bu baax a baax ñaanal rek suñu borom xaare ko àjjana xam nga cat bañ ko jiitu si bàmmeelam waaw loolu rek lañ si doon am lu sànni comme kàddu jaajëf jaajëf Malick malik la ñuy tawal mu def témoignage si Fallou wax Fallou moom mbooloo bi ñu gis moom ëpp na noonu la demee kooku moo liggéey mhm. moo liggéey quoi kooku man wax ñoo ñoo football mhm. ñoo defandoo lépp école football il ba mu dëkkoon 27 nag angle 6 la dëkk kon Fallou man mënu ma wax si moom dara jambar la jàmbaar moo quoi mhm. mu jàmbaar tey soo koy xool maanaam tey mënoo wax si moom dara. tey mbooloo bi nii yëpp mm-hmm. moom moo ko liggéey xam nga sax nañ ne bandi mm-hmm. wala korochaar mm-hmm. kii du korochaar kii tëdd nii tey. nit ku baax la barke Seydina Ousmane nit ku baax la gis nañ ko ñun ñëpp. jàmbaar kii day teral nit. day xaalisam ba gën ko soxla mu bàyyi ko ki yaw mu yor yére nga gën ko ko soxla mu bàyyi ko ak yow. kon kii yàlla na ko yàlla xaaree àjjana. amiin amiin yaa rabbal mais nag nekk si kaso gi gars yi dañ si war a wax. foofu waaw foofu gars yi waaye kaso gi metti na tey tey soo xoolee jomaay Sonko. Mhm. xam nañ fa du fa nekk. Mhm. grâce pour mun bàyyi am na ñoo xam ne defuñu dara bàyyi. Mhm. am na ñoo xam ne ay tolof tolof moo ñu fay dugal. am na ñoo xam ne nekk nañ fa mënuñu gis nit ku indi lu ñu lekk waaye war nañ mën a xool si kaso gi fa nekk waaye kaso gi tàng na jër doo ko xam parce que Serigne Touba am na ñoo xam ne tey jii nii nii am na ñoo xam ne jaan feebar am nañ fa fi ay feebar yoo xam ne yow xamoo man xaw ma yàlla rek a xam mais garde yi fa ne waaye dañuy tottire gars yi yàlla dëgg la bëgg yaa ngi dégg rumeur bu ne booy bi asma moo waral wala booy raw photo dee. waaw moom maa ngi dégg ne moom campénal la nekkoon après gars yi jëlee ko campénal yóbbu ko waaw xam nga loolu lan soo xoolee maanaam nga gis benn booy bu ndaw nekk si biir kaso ah, def di fa def lu ne ñëpp bëgg ko am na ñoo xam duñ ko bëgg. waaw gaare yi dañ ko teg bët. kon moom. waaw moo tax ñu dippoot ko yóbbu ko Saame. Hmm. ku tëdd quatre mu dese ko un an trois mois. pour mu génn pour mu génn dippal ko yóbbu ko saane pour ñu yokkal ko ay ceesam. waaw sax loolu dafa metti de. dafa kon gor mënul dëkku loolu. gor su dëkkee loolu sax da lay wan ginnaaw bala fa yow. kon kii yàlla moo ko bëgg. dëgg la. cat nag dafa topp bu nekk booy. àdduna ko bëgg àdduna. àdduna waaye li kay sooy xool ñu ne Ndakaaru. kii mooy Ndakaaru kii tey kay loolu moom dëgg la barki Cheikhul Khadim li nga wax nii kay lu am la mais nag yàlla ko yàlla xaare àjjana amiin yàlla yaayam yàlla am xol moom amiin yàlla mais nag Fallou dem na mais ñun ñooy Fallou waaw yéenay Fallou waaw Fallou dem ko yàlla yërëm taxaare muy fekkee ak ñu koy waaj a fekkee dëgg la xol xool nit bàyyi gëj ko gis bàyyi mu war a génn gaan pour mu savourer loolu mooy mu làqoo sa ginnaaw waaye loolu dafa tar barke Sëriñ Tuubaa mais garde yi nañ yërëm gars yi nekk si na de garde yi nañ yërëm gars yi nekk si biir gars yi nekk si biir seen yaay ñu leen di xaar seen baay ñu leen di fa jógee fexeel ba fa la booy bi yàlla na ko yàlla yërëm te xaar ko ay yéen ñi nag li ngeen def rafet na trop mais am na ñoo xam ne ñu ngi wax xamuñ suñu xamoon booy bi bilaay dañ sàkku si moom ngërëm booy bi nitu yàlla la yàlla moo xam ne muy def lu tax mu laakoo suñu ginnaaw nag moo ki yàlla la quoi te booy bi muy dem dafa yóbbaale lépp dafa set wecc dix ans nit da ko mën a dëkk vingt ans nit da ko mën a dëkk quinze ans nit da ko mën a dëkk kon lan la ñoom ñooy yàlla ñoom ñooy yonent mais keroog yombal am na am na yàlla ñu mu war a duma ak a bàyyi mhm. am na ñoo xam ne ñu ngi fi di def loo xam ne ñun sax defuñu ko di foo xam ne dëkku fa te ñoom seen doom yi soo doon xooloon saa yi kon nga bàyyi sax ñu nekk si mbedd ñu bàyyi seen Tuubaa Mbàkke loolu la am si lu may wax. ñu ngi lay jaajëfal Cheikh Xarim Afia. ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax a baax a baax. asalaamaaleykum def témoignage si Fallou gisam nañ ci mbooloo moo xamante daanaka ñun man moom sama bopp man kii bu demee bu def dem na àjjana direct direct direct ndax li ko topp nii rek dem na waaw ñun nag maa ngi leen di nuyu di leen ziar di leen jaale ci lu ñu bokk waaw parce que Fallou moom wax dëgg fa yàlla man mii di wax ak yéen moom daanaka miin dëgguñu noonu quoi mais yàlla dogal na man ak papam ñooy ànd papam bi ko jur ñoo bokkandoo benn grand place boo xamante ne fa la ñuy xëy toog fa la ñuy añee fa la ñuy defee lépp man moom ñu ànd yàlla dogal na loolu gis nga rek parce que affaire moom métti na ñëpp mais dañuy xam ne ndogalu yàlla la parce que yàlla moo ñu ko joxoon moo ko jëlaat léegi daal li ci des mooy lu dul mooy ñaanal ko yàlla yàlla yërëm ko xaare ko àjjana waaw d'après nag ak rumeur ma daan dégg ci yëpp ku baax la nit ku oyof parce que boo xoolee daanaka nit ñi nu ñu bëree fii sax da xam ne wax fa yàlla wàcce woon na boppam ba pare nekk na koo xamante ne tey jii tamit àdduna ñëpp xam nañ ko ci lu baax li dul daal ñaanal ko yàlla yàlla yërëm ko xaare ko waaw loolu daal lañ xamoon ci li ñuy wax quoi waaw amiin amiin amiin amiin jaajëf